nuyu naa ñëpp fii laay tàmbale yéen ci seen revue de presse sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan ma wax la li xew ci réew maas na sunu gaal gi yëglekaay gi na ca Bambey waaw yëglekaay bi ne ndekete waaja li nekk ca dutee remettre en cause bëgg a rey élèves yeeg quête perpétuelle du ndekete moom jotuta def la nga xam ni moo di quête des diplômes amul benn benn benn benn diplôme bu ko war a mën a may mu jàngale ji ji day jàngale na fukki nekk ci école bi yëpp yëglekaay bi ne amul diplôme bu ko fa war a mën a teg ay waaye ndaw sàmba te mi ngi teg gone yi ci yoon wa kat a philosophie c'est se mettre en route te moom tegul ca yoon wa moo taxit moom waa ji day gaa ñaa koy wër laa la wax ay bu nu ko jàppee yée tëtëtët bi sàcc de bu nu ko jàppee musiba mbaaba kumba dëgg dina ko dal sàcc bi laa la wax ak jur la sàcc waaw gaa di ko wër aka topp aka dàq ji waaye sàcc ba sàcc jeex yëglekaay bi ne bi ni du ko dàq sàcc ci mi moom da nga xam ni moo di sàndarma ni ma maala ko mbii mi da ngay seet lii rek doy na waar la xew itam ca kër Momar Sarr yéeme na te doy waar waa ji day ñàkk déggoog yaayam ci kàddoo tax mu topp koog jaasi ewaay eh law sàmba ni da koy rey ay waay moo lu ko fi jar ba waa ji bëgg a faagaagal yaayam jile fii la réew mi toll de ma ni réew mi fi mu toll kay yéeme te doy waar ca baaw baab karak si yëgle kaay bi nee coow la nga xamante ne moo amoon ca jumaa ja ba gita ngaas bu metti amoon cax la jàppal bàyyil ja mel ni tulleeg màlle yëgle kaay bi ne yoon traversé na ah waaw damaa xam te mënunoo déggoo tax yoon ni leen jiiteeg jumaa ji ci jàkka ji dey àjjuma ji jot da koy ay ayloo maanaam tey ji am na ko aye est-ce que ña ngay ay ayloo néegub yàlla ba mbete kër ku jiite ñaari àjjuma jox sa moroom ñoom ñetti imaam yi de noonu lañ ko fas yéene ànde ndax kenn nanguwul la bàyyi sa moroom mu jiite waa ma ne ca jiite ga moom xanaa daa am leneen lu ca ne lu dul yàlla doy na waar de kenn nanguwul la bàyyi sa moroom mu jiite la de tax dawal buur ni leen bu kii jiitee ñaari àjjuma ka ca des jiite ñaari àjjuma ka ca jël ñaari àjjuma te jumaa ja ba tey ñun leen diirub ñetti bayaan du am wasifa du am xadratul jumaa du fa am ew waay lii nu nar a nemmeeku fi dara dëppoo wuceeg li yàlla bëgg kat yemuñu ci de ba noppi nag tëkku leen ni leen nag gis nga respecté leen li nga xamante ne moo di point d'accord yi nu fi teg sinon sinon rek musiba mbaama kumba am dëgg dëgg réew mi doy na waar ma ne la fii la réew mi toll de seetal ma loolu ci jamono ji nga xamante ni laa la wax ñañi woowee les jeunes éleveurs du Sénégal ña nga yëkkati seen kàddu ca kaw di ŋàññi laa la wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa comité session bi le ñaaw loo doxalin wi nga xamante ni moom lay doxalee Les Échos yëglekaay ni ma ña nga xamante ni ñoo di député itam di jóg nañ de wax nañu ñoom it wax ak nañoo ki nga xamante moo di Racine Talla waaw njiital RTS député yi fare ci ku jegi mer dëgg lañu def laneen mer loo nag moo di ana lan moo tax ñoom télévision bii nga xamante ni télévision nationale la opposition bi safu ci saf réew mi de yéeme ne te doy waar vox pop yëglekaay ni ma xoolal juróomi école juróomi ni dagg nañ seenum ndox la waral sabab seen lu dul ñàkk fay facture tey ndox mi wal fu quotidien yëglekaay ne ma ndox mi de yóbbu na dund góor gi nga xam ni màgget la VAR bi yëglekaay bi ne mag mi la mu def moo di dugg ca la nga xam ni moo di bassin ba daal di fa la wéetététét mbir mu yéeme te doy waar mi kat ma nga amee ca Malika turbine yëglekaay ni ma lu mat fukki organisation ñoo taxaw laa la wax lànk ni ñett du fi amee bañ la ñu def laa la wax ba wut ku leen di lank le ci li nga xamante ni moo di wàllum troisième mandat mi ci dëkk bi la ko xamle ñoom day mi fi ñu toll tembe bu jéemee mbaa mu jéem a forcé ngir am troisième mandat musiba mën naa xew ci dëkk bi la le mandat yëglekaay ne ma ci lu jëm ci wàllum xeex troisième mandat bi la dey le front s'organise et s'élargit l'évidence yëglekaay ne ma fi mu toll nii kay accélérer la cadence dëgg la waa société civile def jóg taxaw la wax dànkaafu njiitum réew mi président Macky Sall ci mboole seen lu jëm ci jéem a wax waxi troisième mandat vox pop yëglekaay ne ma Alioune Tine yaana di ña mu àndal day la ñu bëgg moo di njiitum réew mi président Macky ni wul troisième mandat ñoom day ña nga naan ko de grâce respecter la constitution waay waay njiitum réew mi jàmm gën troisième mandat di ay kàddu alutin ak ñamu àndal yëgle kaay ni ma ñoom nag de dem nañ sax ba koy développe déclaration ngir mu génn wax ak askan sunu gaal ni leen duma def troisième mandat ngir réew mi mën a dox ci jàmm ak salaam jàmm gënu ay ci jooju la jamono njiitum réew mi président Macky Sall Sall ngaari dee ngay xool naka lay def ba ay ndawam jëm ca kanam réussir laa la wax te bàyyi bind stop à la fuite bëggatunoo jéggaani dara njiitum réew président Macky Sall ne jàng mu kawe mi gone yi di wuti ca bitim réew daan ko am ci askanu sunu gaal gilee laas yëglekaay ne ma Macky exalte l'excellence et le savoir maa la ko wax moo tax it ni ki démb yëglekaay bi ne jaar na fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar amal pose première pierre ouverture des classes préparatoires à Thiès est-ce moo tax itam mboole seen autorité ya nga xamante ne ña nga ca du mbuur ak soow di Idrissa Seck njiital réew mi yëglekaay bi ne teewoon na ak mobilisation bu fatt taraj Mamadou Lamine Massaly yëglekaay bi ne kenn demul mu des ca mobilisation ba ñoom Ousseynou Diouf Abdoul Mbaw ñoom ma ni jigéen ñëpp a teew yëglekaay bi ni ma ba ci ki nga xamante sax moo di jaraafu dëkk bii di Babacar Diop maire bu Thiès kaay yëkkati fa ay kàddu day moom day jooyal na waa Thiès wax doléance bi nga xamante mboole seen kurub Thiès waa dégg klaxon yi saxaar ga pimpamp locomotive ba bousculade ba reetaanoo ña nga xamante ne ñoo fay liggéey ka xàq taay te dëgg dëgg njiitum réew mi tontu na ko yëkkati na ay kàddu ne li waa Thiès bëgg rek laa bëgg tey dinaa leen ci taxaw waxuma la Thiès waaye Sénégal gépp des na ci yëg seen bopp ñun de lii dinañ ci yëg sunu bopp amul footballu gazon amul footballu suuf Égypte dinañ leen wan ñun ñooy ñan ma ni coupe d'Afrique bii lu munu jaraloon ca coupe d'Afrique ba jàll dinañu ko jaral ci bu suuf si ma ni ala accu dëgg leen ci fa séene demee dem ba jeex laa la wax donte am nañuy manquement de waaye du tee ñu woon Égypte ni ko ñun ñoo moom coupe bi nunu man ci bii dinañ ko dugal tey luñ leen mën a xañ ñoom waa Égypte dinañ leen ko xañ ma ni supporter ya tàccu yaak raj-raj la ja bu dara des allah accu Sénégal ambiance la xam likaay bi ni ma loo ci xamul de match bi match derby dëgg la mujj doon raam-raam sox xëcc bu daggul dikk wane leen seen bopp ni gone yi doon football ca gazon ba suuf ak gazon soreewun maa la ko wax baaxee rek ba sama clavier a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Dammel jaa ngeen dëkkandoo yi doomi ndey ayca euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi may teewlu saa su nekk en direct ayca fii ci Thiès Info di ma teewlu mi ngok euh, mbokk yi kontaan nañu leen bégg leen itam bu baax a baax a baax a baax li olof njaay naan doole lay jël ndox la waaye man Fall Damel ma àdduni sama doole yéen ñi may teewlu la awma lu dul yéen waaw awma lu dul yéen nag mënuma am itam lu leen gën mbaa lu leen sut ayca mi ngi noonu ba tax na kon faaw rek ma leen di bigi saa su nekk nag saa su nekk nag du am yenn saa soo xamante ni rek dinaa leen won ginnaaw yéen ñi nga xamante ni yéen a may teewlu waaw nit amul lu dul ay aw nitam nit amu lu dul ña koy tiitaroo nit amul lu dul ña koy safoo man yéen a may tiitaroo di ma safoo man yéen laa am yéen laa am ayca ci noonu may nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi may teewlu euh, bàyyiwuma kenn képp ku may teewlu ci biir réew biti réew di la jox sa wàccuwaay bu baax. ayca mi ngi doon laataa ñuy sori rek ñu jox leen benn bataaxal euh, koo xamante ni dafa réere réere ca Ndukumaan Ndukumaan mi ngi nekk ci diggante euh, Tiwaawoon ak Touba Toul ayca xale bi réer bi ñu woy ci Baye Abdou Aziz Ndiaye la tudd euh, doom la ci Samba maan njaay ak ki nga xam ni moo di Kiné Fall mbokk yi euh, xale bi euh, du mag lool du mag du mag. moom nag ci CM la tollu am njàngam ci CM la toll kon xale la kon xale la amagul vingt ans booy xool amagul vingt ans donc dafa réer ñuy ñaan rek ñi nga xamante ni ñoo ko teg gët ñu daan ci dimbali dimbali ci ay mbokkam bu baax a baax képp ku ko gis mën nga woote ci numéro téléphone bii di 77 118 74. quatorze quatorze Euh, ku ko gis rek nga daal di ci woote euh, ñu ci sàkku nag mbooloom mboolu seen koo xamante ne gis nga ko rek wala nga daal di may woo ci 78 78 296 29 67 di numéro Thiès Info ay ca mi ngi noonu ca ndukumaan la dëkk euh, mi ngi noonu ñuy ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi dara tawul daal di ko niit niital ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay mbokkam ba nu daal di ko tegaat gët mi ngi noonu mbokk yi buñ ca jógee ñu daal di waxtaanee li nga xamante ni moo di café gi nee naa leen dañ koy xeeli tey Mbaye Fall dafa mel ni tàngal na café gi jàng jëri jëre ko ca ka nga xamante ne moo di Bayoro Gueye daal di ko indi Bayoro Gueye café moom sunu waay la ñu jaajëfal ko bu baax a baax jox ko wàcc waayam mi ngi noonu euh, kon nag café gi mbokk yi des koy naan ba simb leexu ay ca mi ngi noonu euh, euh, ma daal di ci lim rek quelque personne yi nga xamante ni nee naan saa su nekk dañuy commenter nee naa leen ku ci bëgg ma lay lim rek del commentaire c'est facile simple comme bonjour ay ngi noonu ñi ca whatsapp ba bëgg naa leen waa waa waa waa Ceneba waa Ceneba jeunesse Ceneba maa ngi leen di bëgg bu baax a baax waa Tine Info maa ngi bëgg nag bu baax a baax sama soxna su baax waaw sama soxna yu baax yi sax laay wax waaw a ginnaaw aaw buuru këram xaritam bii di euh, Kiné Diakhoumpa maa ngi bégg Kumba Dia ñaareel xaritu jëkkëram ngalam ay mi ngi noonu mbokk yi nag may nuyu bu baax a baax Jibi Ba di bégg bu baax a baax Omar Diallo di bégg bu baax a baax ma bégg euh, Guèye di bégg El Hadj di bégg bu baax a baax Cheikh Omar Diop di bégg Kiné mbay sama xarit la Kiné mbay maa ngi koy nuyu bu baax a baax di bégg Papa Thiaw di nuyu euh, Awaka. <laughs> bëgg naa la bu baax a baax gis naa sa commentaire maa ngi nuy abu nuyu Aboubacar Dabo sama xarit la di nuyu Dame Kunta nuyu naa bu baax a baax Papa Thiaw bàyyiwuma kenn mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi ñoom Mbaye Fall ñoom pirum ndëri ñoom ñëpp bëgg naa leen bëgg waa Touba Toul bëgg bu baax a baax waa Gossas bëgg waa Kaolack Ndagane li louis Matam ci Kicoor encouragement ah, Ngunjaan ba xombal wàccu mag kenn kenn kenn kenn kenn mbokk yi jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci askanu sunu gaal def ko ci képp ku ñuy teewlu jaageen jëf ba si baak